waay kii dóoru ko waay ma ne loolu sa yoon ne aussi da ngaa bëri histoire rek ah waay defuloo dara ah, defuloo dara ma ah, doomal la wallaay doomal la waay yow doom nit doom nit Wait, wait, wait. waaye saa yoo xam ne ñoo am nit ñi. waaw loolu la kay bàyyi wu ñu ko ne bàyyi wu ñu ko. bu dee àgg si montage bi gàllankoor. waaw wuy ma yow ma jëm waaw waaw wàcce ko mu def li mu def wàcce ko yoon a ji. yoon a ji yoon a ji gàllankoor bi moom li mu def la ko. waaw bu def loolu. waaw léegi tey bàyyi leen ko. bu ci mën leen dara mu def. waaw waaw waaw kii bi ma ne ma koy saaga tey yoon na ko def. waaw loolu la dama koy saaga. waaw waaw waaw waaw travaille pour nous. garaawul ñun waaye ma ne yaa ñuy liggéeyal suñu suñu surga nga waaw. waaye ma ne ma ne maa la jiit fii maa la jiit Wakam Ngor Yoff maa la fi jiit maa la ma. waaw ngir yàlla la. waaw am nañu di yoon garaawul bàyyi la man Wakam laa dëkk xam nga ma bu baax. man faalewu ma la waaw boo ma laalee di nga gis ku la laal ba tëdd sa kaw waaw man nga naan dajale loolu yëpp. man dëkk ma si dëkk man ma laalee gis ko de ne mën nga ma laal yow. sëbër dama laal waaye li ngeen rek gannaaw. waaw ma man kese ah waaw man laa lay noonu de. waaw. gannaaw sama tuutaay waaw man laa lay lay waaw li ci bëgg a mu wax la xam waaw. waaye. am laay guddoo ci laa ma ne ñëwal nga door ma ñëwal nga laal ma ñëwal rek nga laal ma. moo doon amul amul kenn ko masla na wax na na door na ko door ci miir bi ñu xool ndax moom nit ñi moomul nit ñi moomul nit ñi ak nit ñi doole ki dafa réew dafa réew réew Gracias. ngeen nii yéen a ma tooñ yéen a ma tooñ xam nga yéen a ma tooñ may wàcc yéen a ma tooñ waaw toog ngeen toog waaw toog ngeen toog waaw